téeméeri juróomi junni page yooyu léegi nekk juróomi téeméeri page ak nangam xool jóge ci juróomi junni dem ci juróomi téeméer léegi jox ma benn téere ci tariqa bi benn téere ci tariqa bi jox ma jawahirul maani wala nga jox ma rimaax wala nga jox ma buxyatul mustafid wala nga jox ma adduratul xarida wala nga jox ma beneen téere bu neex boo xam ci tariqa bi boo xam ne dañ koo bind ba noppi ñu ñëwaat tahzib ko wala muxtasar waaw ixtisaar ko wala taysir ko dindi ay mbir yu sa nekkoon bàyyi bàyyi mu des téere bu ndaw. loolu ñoom ngeen ne ko muxtasar zaadul maad sa def zaadul maad def nañ ixtisaar nañ ko. Fatawa Muhammad ibn Abdul Wahab ixtisaar nañ ko. naka noonu minhaaju sunna bo ibnu taymiya moom itam ixtisaar nañ ko. kon loolu maanaam ñoom seeni i tappale ak seen i caaxaan moom lañ jiiñ waa tasawuf maam seen i tappale ak seen i caaxaan moom la ñu wax ne loolu la tarixa bi di def mais man bëggoon naa mu joxe exemple fii nag il faut ma taxaw fi ndax dafa am benn kenn ci wahabiyuuna yi ku ma boole woon ak Omar Diallo mii di wax ci doon wax ci émission bale doon wax waxi kii am yooyu 2S ñu bokk benn groupe WhatsApp man ak Omar Diallo ak ki ki dirige débat bi ñu séq débat bi man ak moom xam nga lan moo yàq débat ba masala mii ban mooy masala mii ma doon wax fii mu waxee nii Cheikh Omar lii mu def ay tappale la téere bii di al ifadatul ahmadiya Muhammad ibn Abdul Wahab euh, Muhammadul Hafiz at Tijani daf daf ko ixtisaar daf cee dindi yam yam bëggul mu nekk ca daf koo dindi bàyyi fa la fa nekk léegi nag comme terme bi mu utilisé waaw ah. ne daf cee dindi loo xam ne Ahmad loo noonu la ko waxee ah. bañ bañ fettuk fettkat yi fett leen. leen waaw bañ bañ bañ bañ weddikat yi. fett leen waaw fett leen moo tax ñu dindi ko te duñ te ko mën a lugg. bañ ñu fett leen te duñ ko mën a lugg moo tax ñu dindi ko. léegi nag loolu laa wax Omar Diallo. parce que waa bi muy defar bi muy wax dañ damay defar groupe bi eh, bi mu ne maa Omar Diallo day kuy gisee ak Ahmad loola ma ne kookoo ma dàqal ndax lu ma nga laaj bu ko xamul dana ko laaj. lii dama ne ko nag léegi lii indil ma ci benn xaqiiq. mu nekk di wër wëral naan seeka boo xoolee di wax yu kenn ay waxi ñàppati ngoo loolu ma ne ko man li ma lay laaj lu yomb la ma ne man su ma la ne su ma ne la woon su ma ne la woon téere sàngam lépp nekku ca leet dafa xam luñ ca wàññi suñ ma waxee luñ ca wàññi dama lay wax lii lañ ca wàññi wala ma indil la luy firndeel ne wàññi nañ ci dara ma ne ko mënuñoo avancé feeg wu indiloo ma firnde wala boo nga nangu ne lii waa ji ay tappale la fi def maanaam waa ji tappalee lay waxee ne Cheikh Omar Fouti day tappale maa ngi jéggulu ci ci baat bi waaw waaye damaa jékki-jékki rek gis waa ji rocc numéro génn ki doon diriger débat bi rocc rocc numéro am génn man rek ma def ci groupe bi <laughs> ya daw daw moom yàgg nañ koo def mm-hmm. daw wala téere bi ba léegi nanguwuñ cee débat nanguwuñ cee débat waaw ba fi mu toll nii nanguwuñ cee débat bokk na ci liy tax mbir yi leer mm-hmm. ñaar nee na bokk naa ci li bokk na ci koy waral mm-hmm. premièrement. Mhm. li tax coow li fay laa bëgg wax. Mhm. mooy borom téere bi ci boppam. Mhm. taxaw publiquement. jéggalu waa tasawuf yëpp. ci accusation yi. ci tuuma yi. ci sos yi. biir ñooñu tarixa tijaan. ci accusation yi. yi ci sos yi. xam nga tooñ mënu la weesu Ahmed Lo. ci téere bi. mu wax lu ko neex tariixa tijaan bay jeexal mm-hmm. ne ku yër lii yëpp aju woon ci tariixa tijaan da war a gaaw nga génn ci ah, yow mii di jàng sama mbind mii waaw bu fekkee yaa ngi woon ci tariixa bi gaawal génn ci tariixa bi nga dem uti ndoxum sunna ah, raxase ko sa raxase sa xol waaw ah. naan loolu wax yi lii tooñ man na ko weesu léegi lu mel nii ki nga xam ne nii yow tariixa bi say bàyyi bàyyi say maami maam mm-hmm. ñi ngi ci aju woon mm-hmm. ba tey ñu la raw junni yoon ndax li ñaan moo fi raw loolu nee naa la tappale la mas naa ko wax ci jamono bi may tontoo Omar Sall mm. ay kii jël naan waa dégg nañ ngay tudd docteur te moo leen raw raw seeni sëriñ mm. ma ne ko man d'accord naa tëj paas boobu mm. léegi samay sëriñ nañ woo télé Sénégal yëpp mm-hmm. défilé bu may lancé bu mm-hmm. fekkee Ahmed loo moo fi raw mm-hmm. nañ ñu woo télé ba ci ñoom seen télé bu ñu bëggee seen télé yi ñu am yëpp seen seen yi ñu am yëpp Makhtar Sam mi ngi lancé défi waa ji ñëw toog. Mhm. ñu def direct. Mhm. waxuma émission bu ñuy enregistré di ko dàgg de wala bañ ko génne. Mhm. ñu def direct. bu dee moo fi raw. ma tegal ko benn téere mag ci mag magi réew mi. su ma ci firilee benn paas. ma doon taalibeem benn paas laa benn. Ah, waxuma ñaar waxuma ñett. loolu la yomb na loolu naa mën a nekk. aywa bu fekkee moo fi raw pour coow li jeex bu fekkee moo fi raw. Ah. te ñoom ñooy wax ne moo fi raw. waxoon naa ko ci njëlbéen nga ba léegi aw ma tontu. maa ngi koy répété waa tey ci biir émission bi. bu fekkee ne moom moo fi raw. Euh, yow sëñ sëñ Mokhtar dañoo ma tegal ko benn paas bu ma ko firilee. ma doon sëñ Mokhtar doo loolu nag nañ noppi di wax doo doo am tontu. xam man lu bëggoon. baal ma daaneel fi ma dikkoon ba tax ma dugal lu mel mm. mooy wane kon coow li li koy jeexal ñaar yooyu. Mm. benn bi mooy. Mm. moom ci boppam mu nangu ne. am na taalibe bi mu waxal ba mu ne mu waaw man loolu moom ànduma ci. ma ma cuqatil ko ay mbir. am na yoo xam ne nag ay danga fanaana la yu ma bàyyi yoo xam ne maa ngi leen di xaar ndax nee naa man defaguma ci émission spéciale pour man kese. say say xalifa laay commentaire bi ma ko joxutalee ay mbir génneeg mu ne ah wax dëgg fa yàlla loolu moom ànduma ci. te loolu moom juumte la. waaye il faut ngeen nangul nit ne mën naa juum. ma ne ko mais yow du yaa ñu yaa koy nangul yow njuumteem. Hmm. te moom mi bind mi ngi fi di dund. Hmm. yow bi nga demee ba nangu woon ne juumul. ma génne la ay miir nga nangu ne njuumte la hmm. moom bu nanguloon ci làmmiñam ne njuumte la ma noppi ci téere bi ak ku mel ne man hmm. waaye moom ba léegi day wax ne téere bi dara nekku ci hmm. boobu moo mën a fay coow li ñaareel bi mooy mu nangoo débat moom ci téere bi moom ci boppam dëgg xam nga dégg naa sax euh, Cheikh Tidiane bi tey di woo ay nit xaw ma la naan ku ñu man ci yebal déedéet téere bi borom ki ko bind mi ngi dund mais moom la ñëw toog mu débattre ci téere bi ñu ubbi téere yi borom xam-xam yi toog posé ko ci question mu tontu. Hmm. bu dee téere bi li ci nekk du dara amul kenn kum ci tooñ. débat boobu bu jeexee mu yey ña nga xam ne ñoom la bokkaloon débat bi. Hmm. su boobaa coow li dafay jeex. dëgg la mais téere bi du ma ci débat. Hmm. tooñu ma ci kenn. te ba léegi nit ñi di ci génne ay wax yoo xam ne ni ba léegi kenn ci ñoom mënu koo se mënu koo layal. ci ay textes yoo modifié falsifié ko ci ay wax yoo xam ne ni wax nga ko ak isi ko wax tasawuf. léegi nga ne loolu le moom du dara mais coow li du mos a jeex. déedéet ala kulli xaal hmm. loolu laay dëggalee rek li nga li la léegi léegi xam nga lu ma bëggoon hmm. damaa bëggoon ñu weer téere bi ñu ñu weer téere yow yaa ngi yor al juzul awal nii léegi da ngay ubbi page quatre cent vingt et un vingt vingt deux juzul awal waaw ah, juzul da ngay ubbi page quatre cent vingt deux aywa léegi li ma bëgg waaw hmm. léegi léegi li ma bëgg mooy ñu jël ad euh, daairatul fadliya léegi bala ñuy jël euh, ad daairatul fadliya pour nit ñi gis cuxat yi mu cuxat yan xeetu cuxat la tappale yi mu def yan xeetu tappale la ad daairatul fadliya lii benn risaala la boo xam ne benn lettre la boo xam ne sayidna cheikh moo ko bindoon genn kilifa ci kilifa yi aada yi wala boo ci ci njiit yi nga xam ne ñoo yoroon doxalin président réew yi rek waaw mu ngoog ab buur bu ko bindoon waaw moom la la ko bindoon mhm. léegi bi mu bindee risaala bi mhm. risaala ci ay yaqulu tijaani waaw bi mu bindee risaala bi risaala boobu Ahmad Lo da koo tuxal ci téereem bii mhm. bi mu ko tuxalee commentaire ci ne risaala bi Seydina Cheikh daf ciy digle daf ciy joxe ndigalal def mooy yàlla gu la neex non lii buñ paree dañ ko da may abal ma liir. waaw ne dañ ci dañ ciy def euh, maanaam dafa nee na cheikh dafa dafa joxe ndigal ci risaale bii. Mhm. ku bëgg a mooy yàlla ku bokk ci tariqa bi rek te bëgg a mooy yàlla man ngaa mooy yàlla amul problème mhm. nee na loolu lay jariñ mhm. nee na itam ab daaira la boo xam ne bu ko gën a bon bu ko gën a ñaaw amul léegi damaa bëgg ñu liir ko seet ba xam loolu fu ko Seydina Cheikh waxee ci ci risaala ñu liir daayira bi waaw ñu liir ko mm-hmm. léegi jox ma jox ma ma liir ma ma liir loolu mm-hmm. ma liir risaala bi mm-hmm. waaw comme moom ni mu bindee dafa wax ne i'lam anna lillahi subhanahu wa taala wala wa tilka ad daaira maknuzatun min waraai xutuuti dawaairi allati hiya dawairu al amri wannahyi waljazai xayran aw charran ñi dégg arab nañ ma teewlu ba fan la sayidna cheikh di waxee ku bëgg a mooy yàlla noo ko bëgg a mooyee rek boo bëggee sàcc sàccal boo bëggee njaaloo defal mooy yàlla goo bëgg a def defal te man maa la yoral sa aljanna déglu leen ba xam da ngeen dégg loolu mu ne wal ictibaaraat wal lawazim wal muqtadayaat fa inna hadihi dawair hiya wa tilka daaira alfadliya hiya daairatu ixtisaasihi wa istifaihi fa yadacuha liman man kaana fiha awafa bil uhudi am am intahaja sirat almustaqim am saqata min almaasi man waqaa fi hadihi daaira min alxalq kamulat lahu saada fi alaxira bila shawbi alamin wala tarwia lii nag bul fàtte ne dafa dagg ak ñaan dafa am ñaan gum ko doon ñaanal yal na la yàlla def nii comme ni ko miinoo moom moom cheikh yal na la yàlla defal nangam yal na la yàlla defal nangam yal la yàlla defal nangam lii ma la ñaanal nag bul yaakaar ne lu jomb la lu mën a nekk la ndax fa inna lillahi subhanahu wa taala dairatun tusamma daaira alfadliya yàlla am na benn daaira boo xam ne daaira fadliya la tudd yàllaa ciy sóob ku ko neex ku mu ca soob danga texe bu ku mu xas ba sóob la ca du seet loo jëfag loo jëful faw dangay texe bu la ca sóobee waa ji ne Seydina Cheikh daganal na daganal na ak mooy xam nga li tax mu mën a daganal loolu mm-hmm. mu mën a wax loolu mm-hmm. il faut mu dagg ñaan gi parce que moom fi mu tàmbalee kenn du xam ne Cheikh da doon ñaan yal na la yàlla yërëm nga ne waa ji nee na waa ma waa ji kër yàlla yërëm na ko bu ñu waajalee néew bi denc ko ba noppi nga ne yal na ko yàlla yóbbu ci aljanna ya gën a kawe benn waay dégg wax ji daan ne ah dégg naa sëñ bi de muy ñaanal néew bi nee na yàlla yóbbu na ko ci aljanna ya gën waxul yal na ko yàlla yóbbu ci aljanna ya gën a kawe ak yàlla yóbbu na ko aljanna du benn parce que yal na ko moom ñaan la léegi nag nguur si daf cee def ay taaliqaat ci risaala cheikh bi yu mel na waaw taaliqaat yooyu moom lay liir ci mi ngi ci téere ci téere bi laa yor nii al juzul mu wax ne euh, li ñu seetlu ci risaala bi mooy wax ji cheikh wax daal wax ju génn sharia lislaam la maanaam wax ji daal daa amul ci lislaam <laughs> maanaam yàlla texeel ab jaam bu ko neex te du seet ay jëfam jëf na lu baaxam jëf ko mu neex ko rek mu texeel ko mu ne loolu di ko wax sax wax ju bon la daaira bi daaira bu ñaaw la léegi point boobu dañ koy munaaqasha door a jàll parce que dañ koo bëgg a topp point par point yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu koo mas woo ci benn xale boo xam ne majeuragul xale bi faatu yonent bi dem ca sallallahu alayhi wa sallam gannaaw gi sayyidatuna naa ne ko ah kooku de xanaa moom ca picc aljanna ya lay bokk ndax moom mës ta bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wala leneen ne ko Aïcha xamal ni yàlla bind na ay nit te daf leen a bind rek pour yóbbu leen aljanna ba yàlla di décider nee na booba ña nga ci seen diggi bàyyi demaguñ sax seen biiru yaay nekkaguñ ay ëmb xalaqa lil jannati ahlan xalaqahum laha wa hum fi aslaabi abaihim yàlla bind na nit ñoo xam ne daf leen a bind pour yóbbu leen aljanna booba ña nga ca seen diggi bàyyi bind na ñoo xam ne itam daf leen a bind ngir yóbbu leen safara booba ña nga ci seen digg bàyyi léegi ana jëf foofu ana jaamu yàlla foofu ana mooy yàlla foofu ndax yonent bi dafa bëgg a wax ci xadis boobu ne kon kum neex man ngaa def lu la neex waa li yonent bi wax ku ko nettaliwaat est-ce que sañoo ñaanal nit ki nekk yal na la yàlla boole ci ñooñu. ci daaira waaw ci daaira boobu. Mm. wala yow koo ñaanal ne ne ko yal na la ci yàlla boole rek ñu ne yow léegi wax nga ne ko ca la bokk. ñaareelu tomb bi waa ji wax moom Ahmad Lo ne kullu man daxala fi hadihi daaira alxaarija an sharia faqad naala saadat al axira fi l axira maanaam waaw kay waaw mu ngoog képp koo xam ni dugg nga ci daaira bii nga xam ne daa génn ci sharia bokkul ci sharia faqad naala saadata fi l axira ne mu ne ku ci bokkul rek texe nga waa daaira bi lu tax mu melal ko ci génn sharia te daaira bi sax ci xadisu yonent bi loolu moo tax ma wax ni moom xadis bi li ma jàpp mooy gisu ko woon te itam bàyyiwu ko woon xel mu wax ne yitam sëriñ bi mu ne Cheikh Tidiane lay wax de nee na bi muy bind risaala bi kilifa gu mag la ko doon bind ba noppi di ko wax wax ju mel nii mu ne xam nga ne kilifa googu day yaafus dootul xër ci jaamu yàlla ndax soo nekkaa daganalal naa la mbooleem mooy ndax lim ko wax ne que xatta takuna zunuba kull zunubu ko kulluha kala shay te lii ko indiwu ko ci biir risaala bi de léegi daf koo tëboon moom mi ngi mi ngi commentaire ci loo xam ne moom indiwu ko mm-hmm. léegi nag li ma bëgg mm-hmm. mooy ñu seet risaala bi ndax yow xam nga yow yow yow yow Oustaz Makhtar Sarr mm-hmm. ndax xamagul nga kenn koo xam ne wax na kilifa diine kilifa àdduna gu ñu xam am ay ndonga ndomba tànkam ndax xamagun nga ku ko waxagun wax ju mel nii cheikh wax kii déglu li ko cheikh wax daanaka mën nañoo wax ne risaala bi fii la tàmbalee amma ma aiduka bihi fasma ma aqul maa yaquluhu rabbuna wa kafa wa waidan mu nekk li ma lay wax ganaaw ba ka ñaanale ba noppi defe naa ne sëñ Maxtaar sooy bind lettre nga nuyu ko ba noppi ñaanal ko ci lettre ba noppi lu ci war a topp wax ko li nga ko bëgg a wax nañ bàyyi xel foofu Ahmad Lo li mu indi ci risaala bi mooy ñaan gi te dafa dagg ñaan gi ñaan gi la indi te dafa dagg gi ñaan gi lépp ñëwul maanaam lii tax nga xam ne cheikh da doon ñaan loolu da koo dagg te xanaa nit doo ko bind lettre ñaanal ka rek doo wax sa soxla cheikh naka li ma lay waare déglul lii sunu borom wax yaa ayuha alladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li xad ne que lii sunu borom wax doy na ak waar yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla ngeen bàyyi ko xel te bakkan bu ci nekk na xam lan lay dawal ngir ëllëg ne ko xoolal i'lam annaka fi martabatin qad xawat maa yu yuxaatu bi min alxayraati wal buruur wa jamaat ma laa yantahi ila gaayatihi min albalaai wa shuruur mu nekk yow kilifa àdduna googi ak sa ndomba yi nanga xam ne yaa ngi ci martaba boo xam ne yaa ngi ci diggante goo xam ne ñaare la wër yiwu dul jeex ak ayu amul fu mu soo jubalee yiw waa ngi nii soo jàddee musiba maa ngi nii defe naa loolu <laughs> jamono ji waaw koo koy wax doo ko ragal doo ko wax koy jay doo ko wax doo ko wax mm-hmm. mu ne ko yow wa anta waaqifun baynahuma yaa ngi ci diggante ñaar yii ci mus jàmm ju bari ji ak musiba mu ba mu metti mii kon nag fa raqibillaha fi qalbi na bàyyi xel yàlla ci sa xol wandur ila xalqillahi bi ayni shafaqa te nga xool mbindeefu yàlla yi ci bëtu ñeewant dégg nga na nga yërëm seen seeni duafa na nga yërëm seeni miskin nanga leen xool bëtu ñeewant léegi lii mooy lu la neex mën nga koo def <laughs> xam naa temps bi bariwul mais bëgg na maa ñëw ci bëgg na maa ñëw ci fi nga xamee ne moom daa yemale yonent bi ak yéeféer yi. naa ci naa ci mais mais mais ma commentaire. ma dëgg la ah wàcce wàccee ko. <laughs> léegi salon salon Ahmad Lo. Ah. mu ne Cheikh Tidiane ci lii la sukkandiku. te hmm. daayiratul fadli. waaw hmm. la sukkandiku. ne Cheikh Tidiane dafa daganal ci tiijaan yi mhm. lépp luy xeetu mooy yàlla mhm. luñ bëgg a def mën nañ ko def luñ bëgg a def rek sàcc mën nañ ko def wor saaga njaalo lu leen neex nit lu leen neex waaw mën nañ ko def waaw ndax lan mhm. suñ borom moo ko res ndax daayiratul fadliya mu ne moom lii la dig buur bii nga xam ne buuru àdduna la doon ko xalamal bind ko lettre bi te lettre bi li nga wax fa daa dagg daa dagg ñaan nga ndénkaane ya ak ñaan ya waaw kay daa dagg ñaan nga ak ndénkaane ya dagg ndénkaane ya léegi ma man ak yéen yëpp nañ ubbi ci Sahiihul Buxaari xam hmm. man ah. <laughs> li Oustaz Khalifa di wax Cheikh Tidiane Gueye li mu wax keneen ah. ko benn mbokk mu ne ko ma jege woon Cheikh bi muy bind léeg-léeg ma participer hmm. nañ hmm. cinq mille huit cent vingt sept cinq mille 827 827. hadis bi Buxaari dafa topp càllala gi di nettali ba yegg si ci abasari mm-hmm. ñu baal ma rek ma liir ma liir bi. Mm-hmm. Euh, donte mën naa ko wax wala fal ko rek waaye ma liir texte bi rek. pour mm-hmm. ñi nga xam ne. naa dëgg la ñooy déglu. ñu comprendre. ñu xam ne ñu réeree waxu nitu yàlla yi. ba noppi di leen accuser ay nit ñoo xam ne dañuy génn ci lislaam ak. dañuy xiirtal nit ñi ci mooy yàlla. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abazarin dane hmm. dama dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi thawbun abyadun fekk ko hmm. mi ngi sol yére bu weex hmm. wa huwa naaimun fekk yonent bi mi ngi nelaw yeewoogul nee na bi ma ñëwee thumma ataytuhu wa qad istayqada ma ñëw rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeewu bi mu yeewoo lan la njëkk a wax ma min abdin qaala laa ilaha illa allah thumma maata ala dalik illa daxala aljanna amul benn jaam buy wax laa ilaha illallah faatu ca lu dul àjjana la jëm mhm. abadarin moom moo ne ko mhm. wa in dana wa in sarax donte dafa njaaloo sàcc abadarin mhm. donte dafa njaaloo sàcc mu ne ko wa in dana wa in sarax donte dafa njaaloo sàcc te yooyu sa bokk ci kabaa'ir yi bokk ci bàkkaar yi yóbbuwaate safara njaaloo ak sàcc laa yasni zaani xiina yasni wa huwa muminun wala yasriqu saariq xiina yasriqu wa huwa muminun mhm. moo tax abasariñ ci saasi bi mu ne ko ku wax laa ilaha illallah yonent bi ne ko faatu ci àjjana nga jëm mhm. mu mel ni affaire bi daal dafa yomb ba tax mu delloo si waatal ko gravité bàkkaaru njaaloo ak sàcc mhm. yonent bi ne ko doonte dafa njaaloo sàcc xanaa mënoon na cee am waat ko ne ko doonte dafa njaaloo sàcc yonent bi ne doonte dafa njaaloo sàcc raxma abi wax ko ñetti muy yi yoon yeneen bi ne ko hee ala raghmi am fi abi dharrin wallaay donte dafa to toskare bakkanu abi maanaam donte neexu la dafay am ak noo ko mën a gisee ak noo ko mënti gisee ah, ah, donte neexu la day am <laughs> wallaay mais lii moo tudd daayiratul fadl daayiratul fadl waaw yow am na euh, koo xam ne sunu borom ëllëg daf koy jéggal euh, euh, ci mbaaxam ak bon bon bu mënti indi lenn dong mooy condition bi. Hmm. mooy faatuwaale nag laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah. c'est que xam nga li ñu bëgg a def li ñu bëgg a def foofu ñoom mooy nangu sañ-sañu yàlla. yàlla yàlla kii doo ko yóbbul bii nii la Cheikh Tidiane tudd Cheikh Tidiane ut tur wi yàlla xamal ko mu ne loolu mooy daayiratul fadl loolu nag dafa am mu te ko xam ji dafa leer hmm. dafa am ñu ko yàlla jagleel ci jàmm yi may ñaan yàlla mu boole la ca ñooñu amiin yaa loolu la ko wax may ñaan yàlla mu boole la ca ñooña mm-hmm. mais waxu ko ne ko dugal naa la ca daayiratul fadliya mm-hmm. assuré lu ko fenn ne ko del def lu la neex mm-hmm. soo faatoo dugg ah, loolu moom bëggoon a wax Seydina Cheikh mi muy accusé fii Seydina dafa bokk ci charte tariqaam mooy da ngay ci ca mbooloo ma fekk loolu mooy bul julli ah ngay julli ci mbooloo fekk amoo ngànt loolu loolu la wax gën jaa néew da ngay jóg njël naa donte la doon tere ñaari rakkan moom ngay def loolu mooy digal naa la nga bàyyi. da ngay tënku ci sariya sax. Ah. dafa bokk ci sart tarixa bi. da ngay da ngay tënku ci sariya waaw kay très bien. loolu dafa bokk ci eh. sart tarixa bi ci des it ne la na nga wattandiku nag al amnu min makrillah. al amnu min makrillah mooy mooy waaw ci tarixa bi attention. attention waaw al amnu min makrillah mooy jaaxaan mooy ah man de bokk naa ci tarixa bi baax na kon baax daal di jaaxaan daal di féex. dootoo bàyyi xel sa borom. te xadis loolu la ñuy nettali yëpp wax na ko ci ngëneelu tarixa léegi te bu jeexalee. waaw loolu la ciy boole. ah bu leen sukkandiku ci lii nag man xam nga yaa ngi wax ne sax am nga ay kii yooyu yooyu am na yoo xam da koy denc mais man am na yoo xam du ma ko denc. man waa ji ngóor si loo bu bu doon dañoo bokk jataay toog dama koy wax ne tegal ma sa baaraam tegal ma sa baaraam ci fi naa Cheikh di waxee ni bàkkaar bu la neex man nga koo def man maa la garanti. man foofu su ko defee mu teg fi baaraamam ma xool ba xam fa muy teg baaraamam mbind mu ñuul lay doon wala mbind mu weex man loolu loolu moom du buñ jàkkaarloon danaa ko laaj loolu bu ñu toogoo nit danaa ko laaj ne ko tegal ma sa baaraam fan la Seydina Cheikh diglee sàcc ne bu ngeen demee ci marché bi rek bu ngeen jaaxlee sàcc leen loolu fu ko naa Cheikh waxee danaa ne ko tegal ma fii sa baaraam loolu moom danaa ko def te loolu yëpp mi ngi ko mi ngi ko mi ngi ko bind mu nekk ci biir ci biir téere mm-hmm. xam naa waxtu wi fi mu toll nii jate na. Hmm. téere bi moom defe naa def ci téeméeri émission. du ko jeexal du ko mën naa ne benn doo xam fas doo xam sax fooy tàmbalee ndax bari lañ ciy coxati <laughs> su ko defee kon euh, ci juróomi minute. laka hmm. euh, naka lan ngay tënkee bi nga gëstoo téere bi en tant que koo xam ne nii hmm. liir nga ko liirati ko. liirit kitaabu taqdis bu Seex ti ngay liir ko liirati ko. Euh, lan nga ñuy résumé lee téere bi yow ci sa jàngat. waaw man de bi ma jàngee téere bi ba mu jeex liir naa ñaari ñaari mujallad yépp liir naa ko ba mu jeex raddu bu Cheikh Tidiane Gaye bi liir naa ko ba mu jeex bind naa ci itam raddu boo xam ne pare na waaye génnagul yii def naa ko ci waaye bi ma paree gis naa ne téere bii junniy page la ak nangam mais mënoon naa nekk rek téeméeri page doyoon hmm. parce que waaw boo boo boo jàngee téere bi da nga xam li ma lay wax moom ni muy bindee buy wax ci menn mbir day dajale nusuus yi fu ne mu jëw diw wax na lii diw indi dajale dajale moo tax gis nga téere bi am nañu ko am te duñu ko jàng xamoo mm-hmm. parce que il faut nga sawar lool wala nga am nga fas yéene koo tontu mooy tax nga liir téere bi mais euh, mbokk mi mi ngi wax naan man pee def tama cee taayee liir mais boo ko joxoon téere bi da koy taayee liir parce que moom ni muy waxee day xotteeku di dem rek di dajal lu ne te booy wax dangay wax rek li am solo bu doon day wax rek li am solo jàll mm-hmm. wax ji du baree nii waaye comme li mu wax li muy wax amul solo moom nii rek lay mën a mel day dajale lu bari benn masala mu wax ci lu baree baree baree bari te daanaka li muy wax lenn la loolu moo tax téere bi baree nii beneen bi itam mooy li nekk téere bi yëpp askanalewu ko ci seen borom am na loo xam daf koo tuxal ci ñeneen dugal ko ci biir téere bi waaye du ay waxi boppam te waxul na itam ñooñaa ko wax daf koo dugal noonu ci téereem rek mottalee ko loolu moo tax téere bi réyee nii moo tax képp koo xam ne am nga ko bëgg koo jàng ngir xam li ci nekk xam naa ne danga nga sonn hmm. waaw li may wax daal mooy képp ku ko amee téere bi bul ko booleeg bul ko boole ci sa kàggu na nga wut foo ko ber rek gis nga man mii sax bi may ñëw saaku ceeb bi ma ko defoon saaku ceeb bi kii yooyu foofu laa ko def du ma ko nangoo booleeg sama fi may def samay samay samay bagage du ma du ma ko nangoo booleeg moom da koy ber fenn rek moo xam ne bokkul ci yu baax yi macha allah waaw loolu daal laa bëggoon a wax léegi rek laay ubbi ah. euh, yem ci euh, Cheikh Tidiane Gaye fi muy indee eh, ñetteelu ñetteelu eh, wax lu dul dëgg hmm. yi wax ci téeréem bi hmm. mu ne eh, waa tasawuf hmm. seen wérdo yi nga xam ne moom lañ saxoo di ko def ci seen zawiye yeeg seen tarixa yi di leen ko jox mooy jeexital ci ñoom ba jihaar sax duñ ko def duñ ko def duñu duñu gàddu jaas yi wala arme dem xeex ak noon yi ah. te te jihaad yi ñu fi mas a xam yëpp suuf yooyu ñoo ko def sëñ jaan ngay ko jihaad yi nga xam ne nii moom la suuf yaa ngi koy mos taal yëpp waaw defe naa Cheikh ku ne Sénégal ne jihaad hmm. sa xel dem ci Cheikh Oumar te te moom sëriñam Mouhamad ibn Abdul Wahab def na juróom fukki xare yëpp ay jullit yoo xam ne yëpp ay julli la ko séqal dareetu dareetu yéeféer turu ci ay jullit rek la doon rey looloo wuutale wahabiya ak jullit ñi waaw waaw maanaam seen jihaat mi ngi mel ne rek la mujjee xew nii. te histoire nga xam ne ñu judd barki dem waaw mu ngoog mi ngi ci internet bi. waaw mooy xeex gi ñu xeex ak yaman. dëgg la waa Arabie Saoudite. maanaam ah, seen mbokku jullit rek la ñuy xeexal seen mbokku jullit rek la ñuy xeexal. loolu moo tudd jihaat ci ñoom waaw. kon mi ngi noonu xam naa euh, waxtu wi euh, jeex na. Hmm. Euh, te li nga xam ne ni yëpp moom la see xalifa waajaloon sax dugaluñ ko ci. Hmm. waaye daal ñu xam ni. Hmm. bindkat bi bind taqdisul asxaas bokk la jëmm ji ñuy dégg muy discours. loolu man li ma njëkk a frappé la bokk. Mhm. soo yoree téere bi di ko liir. Mhm. pare tëj ko ak sa xol bu tàng. Mhm. boo sawaree lool. lépp lu la wax ne maa ngi ko jëlee ci téere sàngam demal nga ubbi téere bi nga ubbi ko boo sawaree lool. ci ngay comprendre waa ji nan lay fooyee texte yi. soo liiree ba noppi. nga jàng téere bi ba téere bi jeex. nga tëj ko dem dugg YouTube. déglu xutba waa ji wala nga déglu ay discours am. Mhm. dafa mel ni dafa am ñaari Ahmad. Mhm. Lo. Mhm. Ahmad Loom Arabie Saoudite mu doon bind téere bi. ak Ahmad loomu senegal mooy discours. loolu moo lay njëkk a faraat man loolu lu ma jaaxal la. bi bii de waroon nga koo maye. page deux cent quatre-vingt-quatorze li mu wax fii ni moo nekk ci Jawahir. ak li nekk Jawahir sore nañ lool lool lool. <laughs> te xool googu daal mosuma koo gis. mooy lan man damaa bëggoon nga ubbi ka nga liir li mu wax man ma liir li Jawaahir wax. <laughs> day gudd yow yow <laughs> boo ko bëggee nga liir ma liir su ko defee ñu xool ba xam moom. day gudd bu ci bu ci aajee danañ ci dellusiwaat. dëgg la ndax moom. Ah. Euh, ñoom buñ ci taay wu rek ñun duñu ci taay. ala ah, kulli xaali dëgg la allah li may wane foofu rek mooy. Mm, dëgg la. kat bi doon bind di sos ay sosam di dajale ay mbiram di falsifier di jaxase. Mm-hmm. moom ngay déglu kay tey mu nekk nit ki wax wane ne kat moom. amul kenn kum tooñ njàngale dong lay def teg ko ci alquran ak sunna mhm. mais ki amul téere bi yaru ko di ko déglu mhm. da ngay tuumaal benn maxtaar saar wala xalifa mbu boo dégg mhm. mu naan waa ji dafa bind wax dara tasawuf wala wax dara tariixa sàngam ndax dafa mel ni yàlla yàlli man su ma amee courage ba bind toog ba jëmmi jamono la ma bindoon ma génn ca damay amaat courage ne attention bindkat bu nekk yàgg naa bind xëy delluwaat ci lam bindoon ndax idée démbam yi bokkul ak idée tey waaye bu ñu la invité ci plateau télé yi nga toog wane ne kat man li ma doon def moom mooy critique seetaan naa ko ñu invité ko benn palaato mu ne téere bi critique rek la doon def te critique boobu noonu mu doon def Cheikh Al Hadj Malick moo ko ci jiitu ci Kifaayatu Raaxibiin Sëriñ Tubaa moo ko ci jiitu ci Masaalikul Jinaan ku ci nekk ci ñoom da nga bind doon critiquer liñ dugal ci tasawuf te bokk ci liñ dugal ci tasawuf te bokk ci mais ki ñëw ne studio bi dafa am luñ ci dugal te bokku ci moo jëlal lii nga génne ko jëlal lii nga génne ko. Hmm. bokkul ak ki ne. studio bi ci boppam moo baaxut. studio bi ci boppam ma baaxut. Cheikh Al Hadj Malick Sëñ ñoom dañoo honnête. Hmm. nekk nit ñu dëggu. Hmm. yàlla kese ñor leen. moo tax duñ ragal kenn ginnaawam. ci biir tasawuf la ñu nekk am luñ ci dugal te bokk ci ñu ne lii bokkul ci tasawuf. mais bañ ko waxee problème amul. dëgg tasawuf lañ dund ba faatu. Mm. Cheikh Al Hadj Malick kifaayatu raaxibiin mm. moom mi doon dénoncé la nga xam ne moom moo xew ca tasawuf mm. ci tasawuf la faatu bàyyi ci njabootam amaatana allahu ala diini nabi wa xubbi cheikhina imaami tayyib uh-huh. ñaan yàlla faata ca mm-hmm.